xamante ni pour mu tenir ces certains discours il faut attendre que ce moment là maintenant les Sénégalais dañuy xaar la déclaration de politique générale parce que mooy joxe les grands actes les orientations hmm. parce que tant que loolu amul mënuñu xam fan la ñu jëm exactement et je pense que le premier ministre daf ca war a focaliser wu concentré sur ses, sur sa déclaration de politique générale mmh. sook sook lu Sénégal avec le gouvernement c'était le plan Sénégal émergent ñoom ba ñu ñëwee dañ ko dindi ils ont en place le projet pour man c'était très tôt pourquoi parce que ci ak plan Sénégal émergent dafa am ay ay ay contrats yu si dafa am ay protocole yoo xamante ni état bi def na ko l' état du Sénégal ah je ne parle pas du pouvoir de Macky Sall je parle de l' du Sénégal parce que damay jël exemple ba Macky Sall ñëwee il a été venu avec son yoonu yokkute mais dafi fekk ay programme ak ay projet mu jël cumul bi moo joxe programme Sénégal émergent maintenant suñu bëggoon affaire bi gaaw baax baax dañu waroon jël le projet parce que programme Sénégal émergent am na lu ca baax mhm. nga def la somme de ces deux choses pour am une vision claire de ce que tu vas parce que le, le PSE c'était dans la, la d'ici l'an 2035 ouais. dans le cadre de la planification mënoon nañ am une autre vision qui dépasse l'an 2035 pour un pour un programme national boo xamante ni day gérer le Sénégal mais soo ko tegee le projet parce que le projet c'est pas ay problème la lay andil parce que ñi ci ànduloon duñu duñu duñu ñëw dugg ci biir soobu ci biir hmm. parce que yow yaa ko gëm mooy li doyen wax c'est le projet de PASTEF c'est pas de la République du Sénégal parce que aujourd'hui certes c'est le c'est qui au pouvoir mais qui gère une république ñoo xamante ni dafa bëri ñoo xamante ni ñi ngi ca nekk te bokkuñu ci ci ci projet boobu nga am donc il faut. ce c'est la coalition Diomaye Président. waaw c'est la coalition de <laughs> voilà c'est moi j'ai entendu quelqu'un mu topp di wax président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ma ne ils oublient que Bassirou Diomaye Faye c'est le président de la République c'est son excellence c'est le projet de la coalition dañ ko tàmm en fait mais c'est son excellence il faut que loolu nit ñi def ko ci seen bopp habitude yooyu sax moo topp nit ñi ba ci kaw ba ci biir pouvoir bi ils ont le et ça c'est le il faut le comprendre noonu ngeen meloon bi <laughs> ba ñuy doog ñëw on dans la dénonciation. on disait dans la chasse aux sorcières. non non non moom laa wax c'est-à-dire. loolu moo leen tardéloon. xam nga xam nga il. président Macky Sall li ko tardéloon li ko sénégalais meree woon bëri woon na ci côté boobu. xam nga moo tax on peut le dire aujourd'hui ci laay ñëw. waaw ko meree woon bëri na il faut faire la il faut faire attention au au au concept qu'on utilise parce que quand on dit état des lieux c'est différent un gouvernement doit faire l'état des lieux soo nee audit dañ naan da jàpp nit. parce que loolu mooy entendement mm. parce que le sénégalais comprend au premier degré. audit de loolu lañ ci jàpp moom. est-ce que tu comprends parce que le sénégalais comprend au premier degré mais nga xam ni moom la moom la pouvoir Macky Sall defoon ci début gouvernement gouvernement am mu andi woon tâtonnement yeeg yenn yi moom <clears throat> moom moo nekk di feeñ nii ah parce que on n'utilise pas les mots qu'il faut. l'état le pouvoir de Macky a perdu presque une année par rapport à la question de la CREI et autres parce que le 26 septembre lañ ko démarré. boobu de dañuy topp Karim est-ce que yaa ngi comprendre donc ne ça fait perdre du temps. à l'état du Sénégal les corps de contrôle ont déjà fait le travail l'état des lieux sur la gestion hmm. et ils le feront obligatoirement maintenant libre au président de la République su nekkee corps de contrôle yi def nañ liggéey bi ba nga xamante ne parce que yow mën nga ñëw bàyyi les cours de contrôle parce que d'ailleurs il l'a dit il a demandé à l'inspection générale d'État de continuer à faire le travail de, contrôle et, des corps de contrôle par rapport à cette situation. de, la présidence. Loolu c'est une obligation jarul sax mm. demander. parce que mm. l'IGE doit faire son travail warul xaar sant ko ko. cour des comptes doit faire son travail warul xaar ñu sant ko ko xam nga dafa loo xamante ne nag ci communication la nag day dem ba ci nekk populisme. te su su nekkee gouvernement nag dafa taxawee taxawaayu populisme. sax yéen kii assemblée nationale. voilà. Hmm. Hmm. donc par rapport à cette situation il faut ñu xoolaat comportement bi sur le plan de la communication parler juste et vrai mais amaat beneen taxawaay boo xamante ni day tax nit ñi amaat confiance parce que su nekkee dañu jëm ci lanceur d'alerte dañu jëm ci leneen ak leneen nit ñi dañuy commencer ragal. te suñu ragalee yaakaar bi ñu am noonu day dem. yaakaar bi kese dañ lay bloqué ku nekk da ngay bloqué li nga am toog. di xaar voilà bi du dox. fi mu ne maintenant nag ma jàpp. nous tous nous souhaitons qu'il réfléch qu'il réussisse tous parce que c'est pour l'intérêt de la République du Sénégal il faut que ñoom it ñu nangu jege ñi nga xam ni peut-être am nañ expérience dans le de la gestion et autres ñu mën leen ah, accompagner pour ñu mën a réussir. ils commencé ah